alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiya wal mursalin seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi haqq qadrihi wa azim ñu ngi sant yàlla sant gu amul dayoo ci làmmin xadratul itlaaq di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moom la yàlla tànn wàccee ci moom alquran jox ko njub ñaan yàlla yokku leer moom na Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu waaye yàlla yokku leer gërmaan ne borom pays bi moona Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu euh, jotaay bi nag li ko waral euh, COMAF un comité d'organisation des activités de la Fayda Tidianiya ñoo doon daje tey ci ngoon ci loolu lañu indu ci réunion bu ñu doon def ci ndigalu al xalifa al am lil Fayda Tidianiya xalifatu Cheikh al Islam alxaaj Ibrahima Niass euh, nga xam ne yàlla daf ko dénk xam-xam def ko muy firikata alquran def ko muy taw ji shabab bi naka jekk loolu lañ xam ci moom ñu orienté jeunesse bi ci ay kàddoom ak ci ay waxam féetoo woon maahat bi di jàngale di yere ci ay discours ak mbindam muy sama waajur bu tedd di al xalifa euh, suñu sëriñ cheikh Mouhamadul Mahi ibnu cheikh al islam alhaj Ibrahima Niass gannaaw bi ñu dajee fële ci salon Serigne Mamoun Birame Niass yal na yàlla yokk leeram euh, daje woon nañ doon waxtaanee euh, fuuglu gàmmu Medina Baye muy loo xam ne mbégte la d'abord ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mi nga xam ne mbégteem yëpp da nga ñoo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy guddeem mooy bëccëgam mooy xarifam mooy sitaam yëpp léppam rek mooy suruuram mooy ikkite abam comme ni mu ko wéyee yonent bi bu jàkkee sax moo koy bégloo bu xoolee lu ne moom lay gis ci moom mooy waruwaayam mooy aljannaam mooy erfaanam mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye moomu nag xam ne bu gàmmu teruwaan wala muy waaj a teru même ko fekkee ci tukki sax dafay tàggoog sagoom ngir cofeel bu jéggi dayoo bi mu am ci yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ba dama ci rexle ko naakiré mu ngi naan xal bi dawaman dawaman bi medina arqubu cheral habibi is arahu yaqrubu sama xol a ngi aju ci madina ndax weeru soppe bi sallallahu alayhi wasallam gis naa ne mu ngi jege ku ne xam na dégg na haniyan li ibrahima laaha hilaaluhu hilaalun badaali naadirina jamaaluhu ndokkeel naa son bopp man ibrahima mu na mu ci boppam mu mën naa Cheikh Ibrahima Niass ne sama weer teru na mbëggeel waxkat yi ci mbëggeel wax nañ lu ne waaye wax jooju foor na foor boo xam ne Eh, ba àdduna du tukki kenn mënu koo jeexal ci maanaa yi ci nekk kon ci tënk daal commence daje woon na tey ci ndigalu xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass commission yi teewoon nañ waxtaanee nañ cahier de charge bi dëgg la retard am na tuuti ci doxalin bi ku ne xam na Sénégal Afrique àddina yëpp eh, feebar bi nga xam ne moo ko lëmbee fi mu nekk nii ba tax na eh, décision yu bëri dafa xaw a sooxee ci naka la ñii ñi di doxalee seen dund seen tukki seen seeni euh, njàng yëpp ko ne gis na ni réew mi yëngoo woon ak àddina ci lu ñu mel waaye terewul nañ ñun yonantu rek la am sallallahu alayhi wasallam terewut mooy suñu yaakaar loolu la ñu bàyyi jàngal te mooy dëgg fii ci àddina ak ëllëg ci àllaaxira kon kooku bësam ci liy saafara yëf yi ci lay bokk bësam ci liy yëkkati feebar ci lay bokk bësam bég ci ci liy bégloo yàlla mu mën a jël da nga kun fayakunam pour teggi ko mën nañ ko cee yaakaar ba tax na kon lépp lu aju ci décision ak déclaration nga xam ne dafa aju ci gàmm gi ci naka lañ koy defee kooku ki ñu ciy déglu kenn la muy xalifa bi santaane woon ñi di ñëw mu Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass atalallahu baqaahu wa nasarahu wa ayyadahu su ko defee nag ñun dañ doon def suñu wareef en tant que talibé en tant que ay jëwrin en tant que ay responsable responsabilité ñu dénkoon ñu liggéey bi suñu waajur yoroon ko Cheikh Mamadou Ibrahima Niass radiyallahu anhu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane yal na yàlla yokk leeram te yokk ko yërmandeem confirmé woon ko xalifa bu tedd bi moom it ci mbaaxam ak xam-xamam ak yaatoom ak kóllëreem moom it mu feddali ndigal loolu eh, ci fan yi ñu génn ba moo ñu yokk ngëm-ngëm ak fit ba tax ñu oote réunion bi réunion bi nag eh, pàcc yu bëri la waxtaane nañ santé ndax point la boo xam ne euh, comme ni ko docteur Diop waxee moom mi jiite santé teel nañoo avertir xamal nañu ne euh, suma commission bii moom dafay impliqué wu ci mbooleem commission yëpp parce que Covid 19 bi moo waral loolu ñëpp nangu ko kon daal ci gàttal ñun euh, Medina Baye ñun COMAF ci ndigalu sëriñ bi ñu ay taalibe di ay jëwrin xuddaamu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass waxtaane nañ point yëpp ci cahier de charge bi li ci aju ci santé lañ ci doon soxla daaw lañ ci yokk ren ak lu ñu lu ñuy confirmer lu ñu confirmer kadaalika ni ko noonu ci assainissement wax nañ ci wax nañ ci eau ak électricité wax nañ ci dégg nga environnement wax nañ ci daal point yooyu yëpp nga xam ne ci lépp la aju bokk na ci organisation bi nga xam ne moo aju ci turbine yi tente yi ak ni ñu mel am na ñetti point nag yoo xam ne intéressé na sëriñ bi lool te keroog bi mu may sasaat liggéey bi wax na ma ko alhamdulilah alhamdulilah wax na ne nañ bàyyi xel bu baax discipline bi nañ bàyyi xel bu baax naka lañuy ñuy accueillir gan yi pour tatagal leen tatagal bu yaatu nañ bàyyi xel bu baax yokk suñu itte ci tànt bi mu gën a baax gën a am organisation wax na tamit ne nañ bàyyi xel bu baax discours yi nga xam ne mooy jib ci gàmm gi ci lu sori ak ci lu jege ndax dañoo war a wax ay wax yoo xam ne dafay dëppook pays bi dafay dëppoo ak jamono waaye ku mu neex rek nga jël micro wax lu la neex sëriñ bi tere na loolu COMAF tam mi ngi artu loolu ci képp koo xam ne yaa ngi jël kàddu nga bàyyi xel ñi joxe kàddu nañ xam ñan lañuy jox kàddu ñi ñuy jox kàddu tamit dañuy jàpp ne ay soppe lañ waaye nañ fexe ba góor góor tam ba wax wax yoo xam ne dafay engagé pays bi sinon bu leneen amee ñoom ñoo ñu wax la engagé ñu engagé wu pays Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ci gàttal daal bi ñu tënkee ba jeexal euh, tënk nañ suñu waxtaan ñëwoon nañ tey seet si xalifa bi ci moom lañ bàyyeekoo léegi gannaaw bu ñu ñaanale tënkal nañ ko ci ay minutes yu gàtt li nga xam ne mooy euh, solo si bàyyeekoo ci réunion bi rafetlu na ko ñaanal nañu yàlla ah li ci des nag moom wax ju mujj ji ci moom lay bàyyeekoo kàddoom tam am na ku ko dénk buñ ci àggee tam lu ñu war a wax loolu ndigalam lay doon waaye daal ñun commence ñu ci kanam ñu ngi ci gannaaw ñu ngi ci côté yëpp pour liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ci bunt nag ki nga xam ne moom la fi yàlla tàgg ndax yàlla mooy def lu ko soob muy ku baax di ku tedd di ku yàgg ku yàgg taxawee xam-xam yàgg taxawee alquran lépp lu ñuy wax ci nit ku baax rek jëfee na ko mu Cheikh Mahi Ibrahima Niass ñu koy ñaanal yàlla fan na gudd ak wér-gu-yaram loolu daal ci gàttal mooy solo si nga xam ne moo doon waral jotaay bi ñu ngi nuyu mbokk yëpp nag ñu ngi nuyu soppe yi ñu ngi nuyu yi fii ci biir réew ak bitim réew ndax suñuy soppe lañ ci Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ñaanal yàlla ci barke Baye ci barke sëriñ bi maa ngi sàkku seen ñaan nuyu ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi nuyu suñu rakk Cheikh Abdallah ibnu Cheikh Mouhamadou Mahi euh, ci al alquran ci jumaa bi ci ci mahad bi ci muhaddis di di ko yàlla def daal ci gàttal ñu ngi koy baax suñu biir nuyu Cheikh Moustapha di nuyu seen mag Cheikh Ibrahim Mouhamadou di nuyu mbooleem njabooti baay bi ndax njaboot gi benn la ziyaara sëñ bi di nuyu mbooleem doomi Cheikh Ibrahim doomi pays bi yëpp mbooleem xadara bi yëpp imaamul akbar ak ay rakkam Cheikh Mouhamadul Mahi Ali Cissé naatiq rasmi waaye mbooleem muqaddam yu mag yi nga xam ne ñoo gàddaayoon ànd ak baay ñëpp ñu ngi leen di nuyu mu njabootu Cheikh Serigne Mbaye njabootu Cheikh Baye Mabdou Niang Cheikh euh, Ibra Fall njabootu Cheikh Ousmane Ndiaye njabooti dégg nga ki nga xam ne mooy Cheikh Omar Touré waaye njabooti ñi ñëw bees ak ñi mujjee ñëw ñi njëkk a ñëw ba ci Cheikh Hassan Deme ba ci naar yi ñëpp maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di leen ñaanal yàlla di sàkku ci ñoom ñaan am na ay soppete yu ndaw yoo xam ne am na ci biir organisation bi nga xam ne moom la doon def euh, tey ci bi nga xam ne mooy commission eau ak électricité bi nga xam ne nii euh, suñ mbokk bu baax moo ko yore woon mu Cheikh euh, Aboubacar ibnu Cheikh Ahmed Tijaani radiallahu anhu moo yoroon euh, responsabilité boobu euh, wax dëgg yàlla di nit ku baax moom Cheikh Boubacar di borom ittee di borom mëggeel ci pays bi yàlla dogal nag tey ci biir waxtaan yi mbokk ak xarit loo xam ne ci jàmm la ak salaam moom jël na poste boobu euh, wëccee ko ay rakkam ay soppeem muy suñu rakk Cheikh Abdullah ibnu Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass wan na ko tamit ne ko man incha allahu taala gën ko pare téye man tam pare naa pour jàppalante ak yow eh, ci lépp lu ma mën ak expérience bu ma xamoon mu geste boo xam ne tamit eh, grandeur lañ koy wax waaw gars yi sali gars yi sali salué nañ ko tey bu baax man tam rafetlu naa ko ci ni mu ko defee ñoom it ñu accueillir ko ci accueillir bu bu rafet mu ngi ñaan yàlla yàlla def fii changement boobu daal moo amagum ci ci lu aju ci commission yi taxawoon kon ñu ngi gërëm cheikh boobu ci taxawaay boobu baax di ko ñaanal yàlla di ñaanal cheikh Abdoulaye mi yàlla jàppale ko ci liggéey bi bu baax di nuyaat mboolem commission yëpp ci seen teewaay di leen gërëm ndax ñoom ñëpp ñëw nañ massivement wax dëgg yàlla teew nañ yendu nañ waxtaan nañ waxtaan yoo xam ne xëy na day gudd pour détailler ko am na yoo xam ne tamit sëriñ bi la concerné ñu ngi ñaan yàlla yàlla mottali lépp ci jàmm ak maa ngi gërëm nag journaliste yi bu baax journaliste yi nga xam ne euh, ñoom ñoo teew manko benn manko bu bees boo xam ne euh, wax dëgg yàlla pour solidarité fajat Cheikh Ibrahim solidarité dëgg solidarité askanu taalibe Baay askanu Sénégal dégg nga tuddee nañ seen bopp tur sax hmm? média de la fayda wax dëgg yàlla maa ngi leen di saluer seen teewaay ak képp ku fi teew koo xam ne tamit bokkoo ci muy bunt boo xam ne tamit dañ koy yaatal mboolem presse bi ci Sénégal wala bi ci àddina ndax moo naan Cheikh Ibrahima international la loolu ci lu wax ci ay kaddu njabooti Cheikh Mamoun Ibrahima Niass yëpp ñu ngi nuyoo dale ko Cheikh Mahamadou Muntasir Cheikh Mahamadou Mansour son excellence Cheikh Tidiane Ali Mamoun Niass ak Cheikh Ali Mamoun ñoom ñëpp ak suñu rakk yu jigéen ñëpp ak mbooleem toppam Cheikh Mamoun mu nekk toppam baay takkaayu nañ incha allahu taala pour gën a liggéeyal Baye ci anam boo xam ne bu gërëm lu moom Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu cahier de charge bi wax naan ci sànq eh, defar nañ ko ba pare incha allahu taala ci semaine bii di ñëw dinañ fexe autorités yi jot ci monsieur le préfet de ak monsieur le gouverneur jot ci ñu jàllale ko jëmee ko ci ministère de l'intérieur ak président de la république sëriñ bi tam joxe na ndigal ci loolu mu ngi nuyu ñëpp mu ngi sant ñëpp ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala Nous venons juste euh, d'interviewer donc le président du COMOF et il m'est arrivé aussi vraiment de, de traduire donc euh, tout ce qu'il vient de dire. Euh, aujourd'hui, nous avons été dans, son, dans son salon en train de, de converser sur donc, le, le de charge. sur l'examination des cahiers de charge. Euh, après avoir remercié donc le bon Dieu et aussi vraiment prié euh, pour le repos en paix euh, de son âme, de l'ex-calife, qu'on appelle le défunt calife, nous félicitons aussi au passage le, le nouveau calife, Cheikh Mahi Ibrahim Niass. Et de par son de par sa recommandation, donc, euh, le président du COMAF a pu aujourd'hui donc, euh, euh, convoquer une réunion sur, lequel, sur laquelle donc, nous avons statué et en même temps aussi examiné le cas de charge. Il y a eu donc euh, quelques changements qui a, été, qui donc, opéré dans ce, cas, dans ce de charge, notamment donc, le changement euh, du poste de, de, de, des responsables de la commission eau et électricité qui a été donc Cheikh Aboubacar Niass est remplacé aujourd'hui par Cheikh Abdoulaye Mahi Ibrahim Niass. Donc euh, ce qui fait que donc aujourd'hui les, les, travaux ont démarré donc avec quiétude et nous souhaitons aussi que vraiment tout se passe correctement et, et, et aussi de manière euh, Euh, plausible. Le respect la discipline, oui. effectivement, le, le nouveau calife aujourd'hui euh, donc a insisté aujourd'hui sur le respect de la discipline, surtout même au niveau de la jeunesse. Et voudrait que toute la jeunesse donc respecte euh, les, les, les, charges, en même temps les normes que, notre Médina, en tant que pays, a, a, pu donc montrer en tant que son image, pour que soit donc une image saliable. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah.